Bienvenue sur Salam Vision. incha allah Aliou Diallo donc yeneen groupe yi dina fekk seen i génn su génnee ku nekk dina la woo joxaat la seen parce que des na euh, je pense six groupes yu war a génnaat incha allah donc ñaari ak yeneen yëpp war na génn le 21 génne nañ ko mbooloo bi donc ci kanam ñëpp ñoom leen seen xaalis pour que yéen ngeen commencé seen liggéey donc pour tàmbali dañuy jël euh, Cheikh Tidiane ah. nga ñëw ñu xool naka la ñuy def ne yaa xam ne yàgg kii a xam ngeen ko organisé woon ah xadi a xam ngeen ko organisé woon bu dañuy def remise symbolique bi ak a nga xam ne mooy responsable yi ñoom après euh, bu ñu gisee seen biir dem euh, wute leen garde corps après ah. waaw donc euh, waaye ñu jël oto jël oto sama oto déposé leen ñëpp ba seen tey dinaa leen may ñaari junni yi nekk ngeen paas ci taxi waaw waaw ngeen paas ci taxi waaw leen ndox waaw leen ndox am mbooloo dégg nga donc donc asalaamaaleykum mbooloo sama maman yi ñuy encore di leen sant ci kóolute bi ngeen ànd ak Maguette li mooy firnde ni rek c'est un grand acteur de développement comme ni ma ko doon waxee ci élection yi parce que dañuy ja dañoo jàpp ni politiciens yu bëri dañ nekk ndax yaay la plupart li ngeen di wax lépp dara amu ci ay naxa naxa kese je pense que am na ñu ci financé te yéen a ko déggal seen bopp ni que am nañu wax xamante ne nii seen financement dafa génnagul loolu moo tax joxagu leen dara man mii wax ak yéen ñii ci élection yi la ma xamee mais tey dafa maa recruter en tant que ci réseau Popdev bon man maa ngi koy sant baax parce que man dama naan papaay xale yi donc da ngay ñëw ma sa ma sa mën-mën nga sa bopp nga bañ a après man tamit ma xool naka laa mën a def yow. te tey tamit bi ñu wane ni que encore ku yàqam di du ànd ak paquet mooy depuis pendant tout ce temps yéen a ngi xaar financement yi sama maman bi ni ko waxee Khady Diallo nee na ndeysaan dégg na ci lu ne ñu naan encore maa koy remercier te moom yàlla rek lañ koy bàyyi. waaye lii bisu tey jàpp naa ni politique jàpp naa ni lii mooy développement. lii mooy doxal réew waaye may la tey suba nga ñëw laajaa ku yàggee ka may da lay jéppi commune bi jigéen ñi ñoo ci gën a sonn balaa ngaa xam jigéen ñoo sonn nga yeewu fajar taxaw ci tali bi kon dafa am loo xam ni warul xaar nekkatul luy xaar am na loo xam boo ko defee da nga def ko ci dëkkandoo bu yàgg na loo xam ne poche màgget ko Abdoul Khouti commune bi de boos bu soxlaa seexu naa soxla binaa soxla keneen ak keneen soxla non faj lii développement ngeen jël jii ku ci jox xaalis nga dem liggéey mu jural la leneen mu jural la leneen loolu mooy doxal réew topp leen ku mel ni Maguette acteur de développement la boo ci taxawee rek incha allah yeneen a ñëwaat euh, nekk président di du mouvement Yamale nekk aussi quatorzième adjoint de la euh, quatorzième adjoint au maire de la ville de de Pikine ah. waaw xam nga mouvement Yemale dafa nekk mouvement boo xam ne dañ ko tëral euh, ci daanaka am na un an deux ans euh, ci surtout au niveau du Sénégal mu jëm ci surtout naka lañuy ñuy fexe ba képp koo xam ne sénégalais nga wala ngay jeune wala ngay pikinois donc nga ñëw bokk ci li nga xam ne mooy mouvement bi ndax suñu objectif mooy comme nuñ ko tur bi indee. mooy yamale askan wi euh, surtout ci jëm ci seen wàllu dimbal jëm ci seen wàllu doxalin jëm ci seen wàllu aussi lépp loo xam ne euh, mooy loo xam ne jariñ la jëm ci ñoom donc euh, tëral nañ ko di ci liggéey nag depuis boobu ba léegi élection yi passé ñu bokk ci surtout élection locale yi donc participer ci élection yi dem ci beneen bannière donc loolu moo tax tey ji bi élection yi passé yàlla def ma am ci li nga xam ne mooy ndombay tànk muy adjoint au maire de la ville de de mais nekk aussi tamit am ci ay conseils aussi tamit au niveau de Pikine Nord donc mais ñun suñu liggéey eh, nekk loo xam ne lu ñuy taxawal la parce que ñun seen sommes un acteur de développement donc suñu mbébét yëpp mooy fexe ba gox bi képp koo xam ne euh, dëkk nga fi muy Pikine wala même lu su pickin donc bu ñu la mënee jàppale ci suñu wàllu action développement ñu jàppale la ci. waaw donc xam nga li waral bésu tey bi euh, dafa nekkoon ne ci biir euh, campagne bi wala même la campagne bi dañ doon waxtaan ak jigéen ñi. di leen xamal nan la ñuy liggéeyee euh, expliquer leen aussi lan mooy euh, surtout seen taxawaay bu ñu bëggee ñoom seen wàllu développement mu doon lu lu yaatu lu mucc ayib. donc mu waroon leen euh, wutal ay financement ci ay banque ak ci aussi tamit ci ay institutions financières yoo xam ne war na leen mën a jàppale. mais gisoon nañ ne loolu comme élection yi dafa xawoon jub si biñ ci génnee tamit ñu bëri doon yàkkamti ñun ñu ne dañuy jël temps. bàyyi ba nga xam ne leer nañu ne groupe bi ñu am groupe yu baax la donc ñu waxtaan ak ñoom ñu jàppale leen parce que ñun lu ñuy doog di tàmbali la mais incha allah dañuy fas yéene continuer donc ay financement la leen wutal donc muy groupement de femmes yoo xam ne financé nañ leen à hauteur de un million mu nekk neuf millions de francs yoo xam ne moom lañ doon doon jéem a tey ji commencé euh, surtout processus bi pour jox ko jigéen ñi pour que ñoom ñu commencé kàmbale seen liggéey donc day doon loo yoo xam ne yu ñu leen di may la mu nekk ay formation jëm ci seen wàllu entrepreneuriat jëm ci seen wàllu même naka la ñuy liggéeyee ba mën a jur xaalis ci li nga xam ne mooy xaalis bi leen jox. donc financé wuñ leen rek taxaw leen di leen seetaan mais dañ leen financé ba pare jàppale leen di leen accompagner ba ñu fay financement bi ba après ñu yaatal ko jox yeneen groupe yoo xam ne moom mooy groupe yi gën a yaatu. donc ñun li ñu def rek mooy fexe ba xool ñi nga xam ne ñoo mën a ànd parce que parfois financement boo koy joxe da koy jox ñi nga xam ne ñoo mën a ànd. donc ñun dañoo xool ñi nga xam ne mën nañoo ànd ci biir groupement yi donc ñu ne leen waxtaan leen seen biir ngeen jiital ngeen war a jiital ngeen ñëw ñu liggéey donc loolu moom moo tax euh, yàlla def bi ñu leen dajalee donc ñu identifier ci groupe bu nekk 10 donc fukki yi ñu ci identifier la ñu jël financé leen un million yi pour que ñoom ñu commencé cee liggéey di ci waxtaan di ci doxal tamit. financement yi euh, day doog a tàmbale parce que booy seet euh, xam nga ay séquence la donc ñun 10 la ñuy def ci première vague bi. donc tey jii euh, jox nañ trois donc le vingt et un dinañ am yeneen six yi dinañ leen jox donc pour que au moins ñu mën a compléter ñoom li leen war a financer yëpp mais dañ ñëwoon bëgguñu xaar ba le vingt et un parce que euh, day fekk ñii seen xaalis munuñu ci jot parce que à la liggéey bi ñu war a tàmbalee léegi lañ ko war a tàmbalee donc teg ndax ku ci nekk bu ñu la financé dina la may ñaari weer yoo xam ne di nga ko mën a toog te doo liggéey euh, di di liggéey te doo fay donc loolu moom moo tax ñu ne nañ ko tàmbali tey informer ñëpp woo yeneen groupe yi ñu ñëw incha allah nga xam ne bu beneen yoonee dañuy woo ni ñi rek jox leen te duñ fi nekk di ci def cérémonie bi ndax cérémonie bi lu tax ñu def ko parce que dañ ko digaale woon ci ay mbooloo donc moo taxoon ñu defaat ko ci mbooloo pour nit ñu xam ne la ñu waxoon def nañ ko te incha allah liñ ci nekk dinañ ko continuer ba au moins yàlla may ñu ci jàmm. Euh, yombalal na leen ko comme ni ma wax weer bu nekk képp koo xam ne jox nañ la xaalis donc incha allah ñoom dinañ dajale seen biir donc ñoom ñu ñëw fay ko ci fukki weer. donc frais financement bi ku ci nekk un million yi lañ la ko lebal nga war ko fay ci fukki weer donc mu doon loo xam ne jàpp naa ne dimbal la ci jigéen ñi te dina am ñaari weer yoo xam ne dinañ ko toog ñu fay donc booy seet ci fukki weer ak ñaar donc donc la ñuy fay mbir mi yëpp. donc loolu jàpp naa ne dimbal bu am solo la mais teewul comme li mu wax ñun du leen seetaan parce que tey jii dinañ leen former ci ay formation yoo xam ne gratuite la dinañ leen jàppale ci wàllu jumtukaay yoo xam ne au moins bu ñu ko amee dina leen dimbal ci seen wàllu liggéey. te loolu yëpp ay ay ay ay ay appui lu ñuy def yoo xam ne du doon ay financement mais financement bi moom à rembourser la donc loolu laa bëgg mu leer ci kanamu ñëpp mais leneen li ñu leen defal lépp nag ci ginnaaw dimbal la loo xam ne ñun groupe bu ci taxaw daal am ci Pastef dinañ ko jàppale parce que dañu bëgg lii doon loo xam ne luy wëy la ba incha allah jigéenu Sénégal gépp ñu mën ci jot. bon man li ma wut daanaka mun naa ne am na ko parce que quand même euh, euh, adjoint au maire c'est vrai que laa nekk de la ville de Pikine mais. Pikine Nord laa doon wut maire bi euh, bi ma doon wut Pikine sama première élection la ma àndoon ci ak ay nit ci ñaari weer ñetti weer lañ ko waajal donc bi ñu demee ñun rek ñoo àndoon ak gëm sa bopp ci liggéey mais comme ñun dañuy doog di tàmbali suñu liggéey dañuy def loo xam ne luy wëy la donc ñun nekk ñu ci loo xam ne dañuy dellu ginnaaw di taxaw moo tax vraiment euh, résultats yi ñu am ay résultats yu importante la euh, ñoo ngi remercier l'ensemble des communautés ak population bi nga xam ne ñoom ñoo ba lu ñu am tey ji ñu am ko ndax am nañ fi ñaari conseiller comme li ma wax nekk fi conseiller ville ba nekk fi adjoint maire je suis l'une des rares candidats yoo xam ne tey jii demoon nga ci jongante ci wàllu élection bi yàlla def nga nekk adjoint au maire de la ville de Pikine donc pour man tuteur la donc maintenant nag dañuy continuer liggéey bi ndax yeneen élection ngi ñëw te am nañ fas yéene incha allah bépp élection boo xam ne jëm na jëm ci wàllu local ñun dinañ ci participer ak naka ñu ci war a mën a participer. waaw xam nga élection législative yi man yàlla def na ne euh, man duma ci candidat euh, nekkuma ci aussi benn list ci benn candidat mais nag euh, am nañ suñu xel am nañ suñu xalaat ndax jàpp nañ ne li xew ci réew mi tey ji lépp fépp fu mënti doon ñun am nañ ci xel am nañ ci xalaat loolu nag ñoo ngi ciy ndajaloo suñu biir di ci waxtaan dañu woon dañuy bàyyi ba list yi génn ñu xool ñan lañ tabb ci liste yi ñu xool ban groupe lañ jàpp ne ñii buñ lañ jàppalee incha allah donc ñu bëgg ci askan bi na leen ko jàppale ñu am ko donc ñu xool ñun nan lañ ci waxtaan ñoom ñu liggéey ci ñu jàppale leen mais li ci am solo daal mooy ñun ñu wutuñu ci candidat nekk ci député ndax ñun suñu rêve du nekk député mais suñu rêve mooy la développement de notre communauté mais naka la def ba ñi ñu fal ñu jox leen ndombay tànk ba bu ñu demee ba teewal ñu fi nga xam ne moom mooy ci euh, euh, ci assemblée nationale ñoom ñu teewal ñu fi niñ ko yaakaare donc moo tax ñun jël ñu ci benn initiative pour dem ci élection yi donc pour participer ci euh, yóbbu ci suñuy tur euh, loolu intéressé wuñu woon élection locale moo ñu intéressé woon mais xëy na législative yi bu jàllee présidentielle yi di ñëw dinañu intéressé ñun noonu la ñuy doxalee te lépp loo xam ne intéressé nañu dinañ ci liggéey fa yéene ko préparé ba buñ ci demee duñ ci am benn déception. moo tax ndaw ñi li ma leen wax mooy toujours fi ñu nekk nañ fa téye bu dee gëm nañ ne loolu mën na leen doxal wut ci nag ku leen jàppale ndànk yàlla dimbali leen ñun foofu ñun loolu la ñu liggéey fii si mouvement bi. mooy ñun dañuy accompagner dañuy former pour permettre que ndaw ñi ñu am taxawaayu dëgër laay bu am solo ba bu ëllëgee du ñu am benn déception ndax dama ne nit ki foo mënti doon euh, nekk fa boo fa amul am-am mën nga fa am xam-xam te boo fa amee xam-xam suba moo lay jox am-am donc dafa am solo pour que xale yi ñu nekk foofu ñu toog fa ñu pour ñu mën a avance ci wàllu jigéen ñi nag moom euh, fi ñu toll nii ñoom ñoo yore kër yi ñoom la ñu war a yàkkamti si ñoom ñoom la ñu war a jàppale ñoom la ñu war a accompagner. moo tax ñun incha allah li ma leen di ñaaxee rek mooy comme li may wax toujours sama sama soxna jigéen yi nañu bàyyi euh, xaalis bu ñu am jëlee ndawtalee ko nattee ko defee ko ci yeneen i mbir nañ ko jël liggéey ci te ñun taxaw nañ pour jàppale leen incha allah ba formation bi ñu soxla ñu am ko liggéey bi nga xam ne bëgg nañ ko ñu jàppale leen ci ba lépp doon loo xam ne lu mucc ayib lay doon. xam naa xam tax mu sañse sañse bu mel nii waaw waaw waaw waaw waaw xam naa ne tey moo tax mu sañse sañse waaw comme comme comme ci daara la xam naa ne après après mu wayal Happy birthday, bienvenue sur Salam Vision.